okkee xarit yi seetaan ñaari doomu Sénégal lañu jàppoon ne ñoo des ca Banjul ñu nar leen boom xibaar bu bees di xamle ne lim nga weesu na foofu ñu nga toll si ñaar fukk ak juróomi doomu Sénégal ñu nar a faat seen bakkan xibaar gi mu ngi tukkee ci Souleymane Ndéné Ndiaye nekkoon fi premier ministre ci nguuru Abdoulaye Wade moom jamono yi ñuy wax ak yéen mu nga ca Banjul xamle ne ne gisee na ak Yaya Jammeh njiital Gàmbi xamal ne ko ne des na leen muñal ba fii ak at bi Souleymane Ndéné Ndiaye laaj tontu dox na si digganteem ak RFM ñu teewlu li bi ma dégloo moo wax wax ko ba pare li ma fi indi. Euh, mu tontu ma. bi may tontu it. vraiment def na jeunesse wu. ay cas récent de criminalité barbare yoo xam ne am na ci Gambie. ay crimes yu crapuleux la ay crimes yu gratuits. Euh, xëy na mu jàpp ñu ñoom Gambien ñu jàpp ne. li ko waral surtout mooy ñi nga xam ne dañ leen di atté daan leen peine de mort te loolu kenn du ko exécuté ñu jàpp ne rek bon dañ koy def ci constitution yi wala ci seen code pénal te du am benn effet ñu ne nag dinañ tàmbali nag di war ne ku def euh, njome bu toll crime maanaam nga rey nit ci sa tayeefu bakkan ah bu la yoon daanee la yoon santaane la def mu ne ma daal la mort dans ci la autorisé exécution yooyu te ci exécution yi du rek ñaari sénégalais daf ci amoon na ci ay gambien am na ci yeneen nationalité euh, gambien yi sax a cët mais mu xamama ne ma ci aujourd'hui ci prison yi am na ñaar fukki sénégalais ak juróom yoo xam ne condamné nañ leen à mort mais mu ne ma daal li mu jàpp mooy diggante bi mu am ak man li mu jàpp ci diggante Gambie ak Sénégal ak euh, ni mu jàppee sénégalais yi nekk fii ci Gambie ñu tolloog neuf neuf cent mille ñu naan un na dina ma may fii ak at mi dee lu ñu exécuté ci dem ñaan naa ko sax ne comme ni ñu koy waxee ci droit ñu commuer maanaam ñu jël condamnation am mooy soppi ko def ko condamnation à perpétuité alors lu ma nag loolu moom du ma du ma ko du ma assuré dina ko mën a may euh, beneen affaire la waaye daal a sama garanti nal daal mooy ni ñu condamné à mort dinañ leen euh, bàyyi am sa at mi daal kenn bu ci exécuté kenn alors loolu nag nga di ko ci sant bu baax di ko ci gërëm kilifa Sénégal bi may ñëw xam nga donc bi maa ñëw euh, waxtaan naa ci ak ba Badara Cissé yëgal ko ko ne ko dinaa dem bés sàngam bàññi lii moom Euh, jéem naa jot Macky Sall jotuma ko donc boo ko gisee nga ne ko dinaa dem incha allah Gambie euh, ci tànk yi daa fay